mbokk internet yi ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu mbégteeg contentement la am saa su ne ci topp gi ngeen di topp ñuy programme fi nga xamante ne rek moom moo di Feeling Dakar TV l' actualité people et buzz nag dañ koy dooreek li nga xamante ne rek xew na démb fële nga xamante ne moom moo di ca centre Abdou Diouf bu jam ñaajo ki nga xam ne rek mooy njiitu réew bu bees bi di Bassirou Diomaye Diakhar fay ànd ak ñaari jéegam rek fële nga xamante ne mooy ca pale ba donc rek mu doon loo xamante ne image du jour askanu Sénégal ñëpp di leen félicité awa yaay ñaareel tanta gis ngeen ni ñi accompagner ki nga xamante ni rek moo di seen borom kër waaye itam fas yéene jiite Sénégal moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye askanu Sénégal ñëpp di rafetlu bile image waaye itam ne ab challenge la jëmale ko ci xale yu góor yi ku ci amoon benn na daal di gaaw daal di ñaar ndaxte ñaari jabar dafa xew rawatina ci nguur gu bees bi nga xamante ne rek moom moo fii ne Astou nekk actrice ci série euh, polygame ku wax Astou xel yëpp nekk ci actrice bu fa li nga xamante ne rek moom moo de ci Thiès benn dëkk ñaari gaar alors moom nag moo nekkoon euh, invité confidence conférence nag astu nag daal dinay dévoiler ay secret yu am solo yoo xamante ne ñu ci bari xamuñu ne woon jot naa dund li mel nee na belle famille bi nga xamante ne rek fa la doon say amaana mooy goro yeeg njëkke yeeg ak ñu ni mel donc dundoon na souffrance boo xamante ne foo ko natt weesu na ko mu ëmb ba diis boroom këram daal di faatu yemu ca moom astu waaye nee bi doom ji juddoo ñu war a xool kan lañ koy tuddee ndax euh, boroom këram bëgg gi mu bëggoon Seydina naa mu salaatu wasalaam waaye itam bëggoon lool saabam ba Omar ba tax na rek moom Astou donc mu andi woon polémique nee na bi xale bi juddoo nag mu tumuranke sonn lool Astou yëkkati ay révélation yu am solo yoo xamante day xëy sax kër gi ñëpp abandonné ko wan ko ginnaaw rawatina nag bi borom këram daal di génnee alduna mu nekk loo xamante ne rek lu jéggi dayaloo moom Astou mooy yëkkati yile kaddu di ko daal xamle mu nekk loo xamante confidence la ba tax na jamono gi ñëpp ngi koy daal di moo do xarañ loo daal di dikk def révélation inédite révélation boo xamante ne ñu ci ëpp xamuñu ko woon ndaxte dañ daan faral di daan dem di bëri ji yaayam ji mooy génn sotti ndox ci mbedd bi ñaanal ko tatagal ko Modou Lo nag nee na yaayam catholique la woon dafa daal di tuub dugg ci diine religion yemu ca nee na moom am na ay cousin catholique donc moom dafa doon famille bu mix ah, muy catholique ak jullit munu cee bañ benn da koy nangu ba tax na Modou def na révélation yi jëmale ko ci woy juróom bi nga xamante ne rek saa su ne ñoom ñaar dañuy nemmee ko benn complicité bu parfaite boo xamante ne rek ku gis Modou gis complicité bi nga xamante ne am na ko ak woy juróom bu jigéen koy gën a rek mooy buy bëri ji ñu gis yaayam en ni muy nekkee ci mbedd bi ni muy nekkee di waajal doomam rek pour mu dem fële nga xamante ne rek moo di ca làmb ja Dieyna Baldé nag daal dinay dikk nag ni démb ndog bi ñu doon def fële ca rond-point Yoff fi nga xamante ne rek moo di à travers micro Feeling Dakar TV yëkk ci ay kàddu li tax demul ci mariage yu Diarra Thiès nee na xew boo xam ne kenn yëkkatiwu la waaye itam xew boo xam ne kenn yëgalu la lan nga fay ut nee jaara Diarra Thiès yëgalu ko xew bi bu ko yëgaloon xew bi moom amul complexe bañ a dem ci xew ndax nit la waaye itam itam artiste la te dafa oyof li tax Diarra Thies yëgalu ko ko nag nee na peut xat-xatu mariage bi la ndax ñëpp xam ne buñ lay a stressé wala nga nekk a tax moom Dieyna Baldé demul ci bile na itam tax mu daal di woy Ousmane ko ba tax na nee na ba léegi rek ma ngay woy di wax ne moom gisul déggul lu dul ab jëkkëru patriote moom ki nga xam ne moo di Dieyna Baldé yëkkati ay kàddu yu am solo jëmale ko rek ci ki nga xamante ne mooy laaj boobee nga xam ne laaj nañ ko jëmale ko ci mariage Diarra Thies li tax ñëwul waaye li tax sax xale seen petit gàlle ñëwuñu jamono gi nag nag ñëpp naan Diarra Thies dafa yëg succès biñ ko takkee ba léegi ndaxte boo xoolee xale seen petit waxu ko ci kenn am na ñoo xam ne tardivement leen ko daal di wax looloo tax xale yi ñu ci ëpp demuñu ci euh, bilee xew nga xamante ne amoon ni moo di Thiès ba tey ki nga xamante ni moo di Rita Ora Rita Ora nag buñ ko bi dem ci actrice sénégalaise boobee nga xamante ne rek moo fi jotoon sëy ak fëna l'artiste euh, ivoirien nag mu nekk mariage boo xamante ne amaana sax diirewul lu yàgg de retour au Sénégal nag moom nag mu daal di créer ab entreprise donc nag ubbi li nga xamante ne mooy di euh, boutique di jaay ay greffage nag moom Rita Ora nag ñëw nag beneen facette ba askanu Sénégal naan ah, temps yi eh, Rita mool gi mu mool kan moo koy gérer kan moo ko yor donc Rita loxo ya nekkoon baaxul donc ba tax na ñibbisi na fi nga xamante ne rek moom moo di Sénégal di réewam ah, toujours heure buñ ko gisee rek muy gën a sañse waaye itam muy eh, gën a eh, belli Mame Savon nag daal dinay dikk nee na moom moo njëkk a laayval ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ah, juróomeelu président bu Sénégal yemu ca nee na nag Abdoulaye Savon moo koy daal di xamle ci live am yemu ca ni ne nag jamono gi nag nee na amatul pelloo amatul xuloo amatul histoire kenn dootu ko woo police moom Ndiaye maam Ndiaye Savon nee jamono gi nag jënd ak jaay rek la woote ku mën gi jënd nga jënd ku mënul jënd nga tàllal ba caaka njaay nee na sax ku ko convoqué rawatina ci nguur gu ñu nekk nag mu nekk nguur xale ba tax na rek ki ko jiite xale la président xale la daal dina koy baax nag ci santam ba nee na ko fay biram penda waagaan waxal ko lu baax ba tax na nee na ko foowatuma xamante ne am na coow man Mame Ndiaye Savon nekkatuma ci lépp ci loo xamante rek jamono gii moo di jënd ak jaay laa woote mu doon ay kàddu yoo xamante ne Mame Savon moo ko daal di yëkkati ci li nga xamante mooy ca directam makkatal mukaram la daal di dem def umra moom l'artiste Wally Ballago Seck ni ko way juróom ba daan defee ajaratu Kiné Diouf Diaga Wally Seck nag jamono gii ñuy wax ak yéen ma fële nga xamante mooy ca Makka fas yéene amal li nga xamante évaluer depuis démb ñu ngi gis li nga xamante mooy yële image waaye itam ñu ci nemmeeku tristesse bi nga xamante am na ko ndaxte ñëpp dañ daan def ci ànd ak way juróom bu jigéen bi ren an nekku ci waaye rek li ñuy wax suñu borom bu soxlaa ñëpp ñàkk Baye Mass l'artiste chanteur itam daat nay dikkaat daal di woy nit way ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye tagg ko ci tagg yu am solo ne askanu Sénégal yow lañ doon xaar ba tax nañ ko Baye Mass a tapé président bu bees bi nga xamante ne askanu Sénégal am na ko waaye itam mu nekk président ndaw gannaaw moom Ousmane Sonko la daal di fal li nga xam ne mooy premier ministre nag jamono gi mu andi polémique waaye ñoom ñaar ña ngay ànd di doxal di def buzz sur la ba tey rek dañuy wéy ak ki nga xamante ne rek moo di toog d'actualité Anna Diamanka buñ ko waxee xel yëpp dem ci ñaareel boobee nga xamante ne rek mooy soxnaam Ousmane Sonko démb nag kenn gisu ko fële nga xam ne mooy ca jam ñaajo Khady Kébé rek la ñu gis mu nekk en toute complicité ak ki nga xamante ne moo di borom këram di Ousmane Sonko ñoom ñaar ñu ànd ànd askanu Sénégal di laaj ci ana Anna Diamanka dafa fay ba dem France ñi naan dafa wann lor waaye jamono gi actualité bi nga xamante ne askanu Sénégal ñu koy miime wala di ko lamlaame ñenn ci bari dañ naan Anna Diamanka dafa fay dafa fay ndax fayut nag loolu dinañ ci gën a gëstu waaye luñ ci mën a jàpp rek moom moo di ca jam ñaajo ndaxte Ousmane Sonko ñaari soxna la am ñaari soxna yi Bassirou Diomaye ñoo fa nekk ak ki nga xamante moo di Awa daawa ki nga xam ne moo di usman Sonko moo fa ne Anna Diamanka nag nit ñi ne nañ mer na dafa daal di génn kër gi am nag amul nag askanu Sénégal ñi ngi koy laam-laame ndaxte démb gisuñu ko ci li nga xamante ne rek moom moo di prestation de bi nga xamante ne euh, njiitu réew bu Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal na ko fële ca Diamniadio benn soxna Ousmane Sonko rek lañ ci nemmeeku waaye itam ñu gis complicité am solo diggante ki nga xamante ne moo di Khady Kébé première dame ànd ceeg borom këram di Ousmane Sonko askanu Sénégal ñi ngi laajte ki nga xamante ni moo di Anna jamankaa fan la ne

waaw mais demal sa kër baay. ba dara du woon dara man ak Lamine Ndiaye. xale bu tuuti jógee fee xamul li ma daj. yow yaay jiite jàmm ji jàmm am jiite woo jàmm ji du ma puus du ma paas du ma fay du tas fii laay toog di leen lëjël mel ni téere ja kanam. mag nag bu amee fulla moo ko may boppam. da nga génnoon wuti ay cumukaay ma génne wuti ay cumukaay. bëgg naa lii leen de nit de defal boppam de. yow nee naa la maag yow fekk su ñu la duma la bàyyi. l'erreur vient de moi léegi lay ñaan mooy. Mor sax yemul yaa nga